waaw onze billahi mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim yéen mbokku internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen di leen di jaajëfal ñi abonégul aussi ñu leen di wax abonné leen affaire yi gën a yaatu di aimer di partager vidéo yi ah. tey nag ñu ngi Joal Fadiouth waaw Joal Fadiouth kër Pa Robert Diouf champion bu mag bi ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal gudd fan ak wër seet si ki nga xamante ne moom mooy Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye wala Caatu Robert comme ni ñu koy waxee muy champion ba nga xamante ne kenn dootu ko ci làmb ji ñi nga xamante amateur làmb lañ xam nañ ko bu baax a baax moom lañ seet si woon tey fas yéene waxtaan ak moom ci carrière am début ak bi mu demee woon jusqu'au sommet comme ni niñ ko mën a waxe affaire yi am tuuti pause mu reprendre aat wala muy def retour nii si lépp la ñuy ñëwaat ci biir waxtaan bi mais avant loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo laay nuyoo baa ngi noonu. waaw ah, salaamaaleykum gars yi xam nga maa leen di bëggee xam nga di leen di tamit gërëm bu baax xam nga déplacement bi tamit xaw na métti quoi du ma def loolu xam di leen wax ci kaw sa kanam xam nga avant tout d'abord maa ngi nuyu xam nga waa Joal Fadiouth ak euh, ñu wër Joal Fadiouth yëpp parce que xam nga boo da ngay juum xam di gërëm sama waa gàlle bu baax sama papa sama yaay samay grand ñëpp xam nga samay xarit tamit di wax sama gaay comme ñu organiser woon fan yi mbapat quoi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen di sant xam nga xam di bëgg waa Joal yëpp waaw. ok di bëggee waa Joal yëpp comme ni ñu ko waxee ci présentation bi Laye Ndiaye champion la nekk si làmb ji comme ni ñu ko mën a waxee dafa doon làmb papam doon bëree Robert Diouf ku ku ne dëgg nga turam si làmb ay magam daan bëree ay ñoom Mbagnick ay ñoom Mamadi ak gaay yëpp moom mu nekk xale ñëw aussi nekk ci làmb ji mais ginnaaw ndono bi dañoo bëggoon laaj laay làmb ji nañ la ko duggee parce que gis nañ aussi ay doomu mbër ya nga xamante ne bëree mais laay doomu mbër la. en plus moom dugg na si làmb ji à ndono bi laay lan moo ko dugal si làmb ji nan la si duggee ak lan moo ko inspiré mu bugg a doon mbër. làmb loolu loolu dina xaw a jàppale daan tuuti parce que man déjà armée laa doon waaj. waaw armée laa doon waaj boobu maa ngi jàng am benn jour boobu pare naa préparé naa sax pour dem mais am na benn jour boo xam ne sama gars yi dañoo waroon dem Kobo Ngoy pour bëre ji mais xam bañ demee ba war a dem. boobu man bëriwuma sax bo musuma bëre xaw ma sax affaire yoonu noonu ma ngi top sama gaay di fubal leg ma na sama gaay ñu dem ko ngoy di beure leg ñu dal leen ci la ut sœur fofu non commencé beure looloo andi beure bi. lambu ko ba ngoy ba pousser ba. waaw pousser waaw. wa ñun aussi bu waxe loolu dañuy contane fier ndax ñun ay doomu kobongoy lañ comme nuñ koy waxee kobongoy séeréer kobongoy 1 ak kobongoy do yëpp ñu ngi leen di beugé di leen di sante waaw lamb ji muy wax ni boobu ay xale yu ndaw lañu moom moo jëloon poussière ba Abdoulaye Ndiaye boobu miinaguñ ko bu baax sax rak mbañik wi lañ doon wax ñun waaw parce que ñu ngi nuyu waa ko ba ngoy séeréer pa Abdou Diouf waaw mbañik fa la doon indi ay nagam mm-hmm. ñu doon gis nag yu nekkoon loo xam ne daf ñoo daa marqué suñu enfance mm-hmm. léegi laay dem ko ba ngoy gars yi daanu mu bëre jël lamb ji bi mu ñëb fekk parents yi ne leen maa jël lamb ji nan lañ dundee moment boobu non avant boobu sax jarul ñëb si kañ ba ñëwee ne pa bi sa doom bi daa final da leen doon reetaan neen xanaa du laay bu ma gis fii ko waaw mu ne laay boobu daa mën tuuti waayam boobu te moom xanaa waxuloon ne sax daa bëgg a kii nu mu tudd affaire yooyu noonu gars ko waaw ba ba si ba ay après avant bi sax ba léegi paa bi gëmul noonu léegi nag si lañ ñëw fi ne di préparé si lay soog a gëm ne nag man maa finaalu léegi nga dem ko ba nga jël final bi waaw ma dem foofu jël ko waaw kan nga daanoon final maa ngi doon daan kan kii Ousseynou Ndiémé waaw Moussi Ndiémé bu Fon. moom waa Joal la. waa Joal la waaw waa Joal la waaw. ok mhm. léegi nga jël lamb ji affaire yi noonu la commencé laay di bëre di bëre di bëre mais avant ñuy gën a sori laay mun nañoo xam ñan ñoo nekkoon ay idoolam si làmb ñoo xam ne dañ ko doon dañ koo neexoon trop mu bëgg a mel ni ñoom di roy si ñoom. <laughs> loolu yaa <laughs> gars yi gars yi parce que fii nii xam nga gars yi moom soo bëggee dégg-dégg rek anciens yi yëpp kii lañu woon mënoo mënoo mënoo parce que tey da ngay ñëw gis suba nga ñëw gis ku la ku ku gën a ku gën a aay te da ngay bugg di laajte kii nii fan la dëkk. waaw da ngay laajte fii fan la fan la dëkk parce que gis na da doon gis fii nii ay ñoomin gars yi ñoomin sama grand ñoom Mamadi ñoom Mbañik. na gars yooyu yëpp dañ fi doon nekk ñoom Njool Ansu. ay ñoom Jame Cox gars yooyu yëpp ñu fi woon xam nga di ko nuyuwaale moom Jame Jame Cox xam nga moom sama grand la. gaa sax dañoo mbëre mais moom sama grand la sama sama la waaw grand bu baax la bilaay léegi si gaa yooyu nga doon xool sa mag yeeg gaa yi bëgg a bëgg mel ni ñoom mais laay bi mu jógee kobongo yi ñëw bàyyi armée bi décidé ne day bëre loolu nan la ko waajee moom ak famille est-ce que paa bi na pour mu bàyyi dem armée bi bëree wala. loolu après paa bi paa bi garaawul paa bi moom après moom moo moo xaw moo xaw a sax yoon bi gën a yomb maire bi moo bañoon. Mhm. xam nga bi moom ni ngi ab intellectuel bu jigéen la moo tax. Mhm. soo xee la mbaji mënul nekk mbër. Mhm. maa Paul Ndiaye nekk mbër yow nga bëgg a nekkaat mbër xam boobu sax am na sama benn gànnaaw bu nekk si mu ngi basket kenn ki mu ngi def taekwondo sama beneen mag bu jigéen bi moom da doon basketteuse la woon xam nga mu ne ma yéen ñëpp mënoo leen mënoo nekk mbër waaw maire bi maire bi moom yàggul sax comme nangu ni comme commencé nangu làmb xam nga mooy loolu. ok mais laay après bu à part ko bu mooy fan la njëkk a jëlee sax bu ne moom day day dem bëri ci léegi. comme moom ba ma demee ko ba ngoy après dama dama dama dama ñib siwaat ba ma demaat jilaas ba ma demee jilaas ñu daan ma fa final benn benn rakku jibi jilaas waaw moo ma daanoon final ma ñëwaat joil mu tombé ak Simon benn suñ suñ benn kii sama grand la sama nijaay la sama lépp la tëgg benn mbapat maa ngi ko nuyuwaale sax moom Simon mu tëgg benn làmb fii nii boobu raw gaadu nag la tàng nag poids lourd nag ma jëlaat raw gaadu yi foofu si Albert Cout bu Palmarin léegi ci biir loolu noonu la demee laaj di bëree mais balaa ñoo dem si carrière bi si àll beeg Dakar ak gën a la dañuy commencé biir Joal ñu gisoon ne da yéen seen biir biir biir Joal fii da ngeen doon bëri mu nekkoon ay làmb yu metti ay lamb yu tar ku ci mel nii Baaba Ndew mbopat yi fii nii <laughs> laay loolu nu mu doon demee. neexoon na trop xam moom it maa koy nuyu baax fan yii rek gisee nañ fee di to ba ta ba ma romb ko nuyu ko noonu. boobu dañoo xaw a soriwante. waaw taw boobu neexoon na trop. yii neexoon na parce que boobu Baaba Ndew mu ngi yor gàngoor boo xam ne seen koñ noonu. buy génnee ñëppay génn si de même que man mii mooy loolu moo tax comme mbapat yi da doon neex. gis si moom boo toogee si moom ancien mbër boo waxee mu la. benn mbapat laa mos a tëgg teg si xaw ma saaku ceeb la xaw ma nag. am fii cinq cent mille si diggante laa ak kii Baba Ndew. da ngeen bëri ci woon yéen ñaar ngeen des war a bëri lendemain ba gars yi waajal ko. waaye <laughs> gars yi doo doo sax avant boobu noonu mbapat la sax. parce que am na benn boulevard bu ñu tegee mbapat foofu daan na fa daan naa fa. léegi euh, mu nekkoon euh, après ñu waajaat nag benn benn làmb boo xam ne ne fii bay bi la. parce que boobu ñu ngi def un te boobu man commencé naa commencé naa comme maa ngi commencé kii jóg ci kaw par ndànk. maanaam jour boobu sax ba mu bañ duggee. ma man ñu njëkk maa yoxosu am sam benn gànnaaw bu ma ne ko dama nga wax dama nga dem si taabal ba kii ñu ñu profité ñu boole ñu. premier tour. <laughs> su ko defee léegi ma mun koo génnee laam bi. aw boobu xam naa ne ay saa yu maa ko mun. te xam nga bu ma rëccee foofu rek mooy loolu moo wax gaa yi gars yi def loolu. Mm-hmm. après nga daan ko foofu. ma daan mais combat yow ban combat moo si gën a métti. bu ñu bu ñu bëre. waaw yaa moo parce que euh, mooy bu may daan final boobu moom bëri nañ bëri nañ nii ba mu war ko ndomu ginnaaw léegi nu ma koy poussé noonu rek mu pivoté ñu njaa ñu dañoo njaax sax laa mun a wax. léegi mu jóg daw xam nga moom nante la lu ngay gis nii <laughs> daa daa yoroon si koy caacaay moom rek mu jóg taalal loxo rek daw. gars yi topp ko après si lañ ko jox jël. waaw mu nekkoon tamit xam nga diggante yoo xam ne da doon nekk ay làmb moo ñu doon boole mais instant yi nii boo ñu gisee dañuy toog di waxtaan naaj waaw. mais à part Baba Ndew biir Joal fii ñan ñoo fi nekkoon ay ay yeneen gaay yoo xamante ne di ngeen doon bëree ay combat yu métti si mbabat yi. mbabat fii non bëriwuloon na parce que gars yi fii nii comme wax bi Baba Ndew la woon rek mais à part Baba moom. parce que dama doon ñëw di jël mbabat yi nii facilement. Mhm. waaw. Moussa Yande. Moussa Ndoye mosu xool dañ doon mayante maax moom. waaw <laughs> kooku man la ko doon solal fii. waaw Moussa Yandé mooy sama mbër nag sama champion moom rek laa bëgg si làmb ji maa ngi koy bëggee di ko jaajëfal bu baax baax di ko nuyu. waaw léegi ñu gis ne laay aussi diggante pussière bi ak raawgadu bi ak tànk bi dafa xaw a gaaw ak yéegu poids lourd bi daanaka laay taxawaawliwul fenn. bu ñu ko doon jël exemple tey dañuy gis genre ñoom Doudou Sané ni ñu gaawee évolution bi si làmb ji mais dañuy dem étape par étape si raw gaddu bi lay raw gaddu ñan la fa tomber ak fan ak fan lay bëri ay lamb yo xamne neex na torop parce que raw gaddu bi euh, bëri na si euh, parce que man yaaguma ci man dama bëri ba la ay dama demaat bëriwaat tamit raw gaddu ancienne bëri tang parce que suma ma bu nekk essa def mako ben at sax ñëw tang tànk tamit non la defee tamit dafa gaaw parce que pour man sama yëg sama yëg ki poids lourd ki maire maire bu dëkkoon fee mar nu mu tudd te mu don toog si taabul yi moo doon toog si taa moo doon toog si taabul làmb yi ko kii euh, nu mu tudd côté ndangaan fii nii rek maire ki mar la dëkk de hmm. moo doon toog si taabul yi foofu moo ñëw ne ma soo ñëwatee dootuma la bind kii hmm. dootuma la bind kii non tànk dootuma la bind tànk léegi poids ngay dem hmm. ma ne ko gars mun mu ne ma noonoo léegi si lañ dem si benn laamu ndangaan nag ma bëri poids si laa ko jël lolo ani yéeg ma nak nga dem ndangan jël poids lourd bi fofu fofu nga commencé di bëre poids lourd hmm. mais lay bi bi mu yëgsee ci poids lourd yi yan champion la ma fekk. man nga ñëpp la fekk la dara nga kay sama grand yeeg ñuma mag ak ñëpp hmm. parce que man li ngay poids lourd mom man dama ñëw rek yalla suñu borom dama see dimbal dama ñëw rek dem ki hmm. dama ñëw rek rombu dem parce que déjà rek. ba may ñëw poids lourd fekk ne gars yi ñoo ma ëpp doole ñoo mun. mais dama loon daan facilement. ba si jour bu may njëkk dem Dakar. may dem noonu. dama dem dama ne dama ma dem Dakar ñu ne ma noonu daa teel. may leen noo fa teg. ñu ne ma noo daa teel affaire noonu may leen noo baal ma dem rek comme man awma lu may perte man suñ su ma daane ñoom ñooy suñ daane du garaaw. ñu ne ma ah loolu nga gis may la waa may leen dem si léegi si lañ dem. ba neewu foofu noonu. Euh, sama premier lam ma dem ba foofu noonu dugg mais ba ma gisee gaa yi dama arriéraat ndax ma toogaat ci ciw gars yi <laughs> boobu ñu ngi doon lan cent cinquante mbër. cent cinquante waaw bu ma xoolal te boobu maa ngi mélange tànk beeg poids lourd mm-hmm. may leen ñii. Mm-hmm. ñii mënuma leen daan ñii nii. Mm-hmm. après bu ma ne ah ay garaawul waaye boobu xam xelu xale bi rek te boobu maa ngi gis. dimle mu ngi fa grand dimle maa ngi koy nuyu bu baax. xam nga maanaam làmba poids lourds Sénégal kenn manqué wu fa ñu doon dégg yëpp léegi ñu tirage premier tour ma taseeg Sidaat bu kii bu jir na ma daan ko premier tour deuxième tour ma am andu waaw ma daan ko moom ma daan ko deuxième tour troisième tour ma am duuru xadi kii waa duuru xadi ma daan ko quatrième tour foog naa kii laa am euh, su ma juumul kii euh, dimle xaw ma ndaxar ne ma daan ko daan usine doole waaw usine doole laa mujjee daan demi final léegi tase Ibou Diaby Ibou Diaby moom ma daanoon final Ibou Diaby sa première dem Dakar nga nga nga imposé wu ba finale wu si biir grand yooyu. ci loolu aussi naa lim ñi nga xamante ne ñoom laa xam ñoom laa seetaan ci suñu zone yi fii parce que laa bi mu ñëwee poids lourd fekk na fi ay ñoom Cheikh Ouz. ay ñoom Mbalka Maak ay ñoom Omar Jalang ay ñoom Jamme Cox bu Ngéeñan mm-hmm. ay André mm-hmm. Léopold André Sarr o Andunga ay ñoom Fodé Sarr ay ñoom bisaan ak yeneen geneen mu nekkoon ay lamb yoo xam ne da doon neex ñoom malal bëri woon nañ de ah. parce que gars yi moom wax dëgg boobu suñ poileur yi ah. boo duggee comme mënoo ñëw nga kii moo koy jël mm-hmm. parce que ko ñun ñëpp ñoo mënoo mënoo ñëw comme bu bu ñu duggee rek mënoo ne Lamine moo koy jël Laay moo koy jël wala diw moo koy jël parce que du am favori da doon parce que ñëpp 100 pour cent lañ doon demee maa si gënoon nekk booy nag maa doon fekk si. mais laay ak ni mu nekkee woon booy ak expérience boobu demeegul noonu laay lan moo nekkoon secret yu nan la mu def ba imposé wu ci biir grand yooyu noonu. non boobu boobu xam nga boobu noonu boo nekkee xale après doo xalaat lu bëri comme yow ñoom comme ñoo la ëpp tur ñoom ñooy am problème parce que yow ni ngay ñëwee mooy euh, cadre xale laa rek damay damay dama bëgg a nekk mbër. léegi nag ñoom ñoom ñu nekk borom Touré nag ñoom dañ lay bëgg di éviter yow mun nga di bëre normal sans pression mais ñoom dañuy xaw am problème parce que yow boo nekkee borom tur bu bu nekkee man laay maa la daan dañu naan doomu Robert bi daan na la léegi ba pare day siiw te période boobu noonu whatsapp yi bëreegu sa amoon na sax normal amaguloon bëreewuloon waa xam nga période boobu noonu lu may doon wax gars yi rek su nekkoon comme période bii la nii ñun ñii man mii yëpp dañ koroon lañ may bëgg di parce que chaque jour da ngay bugg di jël ba doyal da ngay bugg di dégg rek. Mhm. ñu naan la doomu laa doomu Robert doomu Robert parce que da ngay gis ñu bëri bañ ma njëkkee gis. Mhm. ak nu ma meloon noonu dañuy naan waaye kii nii di booy kii daa mën a daan kenn. man ngay sama rappel kaw ngoy laay comme saal bii la meloon laay dafa dafa jiwoon dafa xawoon sew quoi. waaw xawuloo ngay damaa sewoon. waaw boobu maa ngi fooyee ay fubal yi ay góol. Mhm. maanaam dañu doon génn dem bëri ñi sax. su ma ñëwee. dañuy dañuy laaj comme gars yi kan mooy mbër bi. parce que ñoom tellement que nu ma doon comporté woo duñu naan kii nii du mbër. lu si bëri. ok mais laay ak champion yi ma lim ma lim léegi mais balaa ñoo ñëw si champion yi kenn par kenn dañu ñëw laay bi mu demee ba dëkk poids lourd dëgg laay fii ci Joal alfaaj mm-hmm. laay Lamboundou Pape laay Bayal laay. fi nga xamante moom mooy collège. làmb yi ni mu doon demee ak wala yan lamb ñoo ko si gën a marqué biir Joal fii. loolu laa bi garaaw loon parce que gars yi dama leen doon mbalak dama leen naan comme siège bi port laa ko teg rek. Mm-hmm. su ma ñëwee lamb yi du neex. Mm-hmm. parce que gars yi du comme su ma bëriwul. Mm-hmm. mun na diis mais su ma su ma ñëwee nii. gars yi bëri dañuy dañuy dañuy kii dañuy daw. ba si am na lamb yoo xam ne ne benn lamb collège boo xam ne am na mbër yu bëri yu ñëwoon. mais ñenn ñi ba léegi egsi wuñu làmb te boobu damañ guddee ñëw Joal boobu egsi naa Joal mais duguma ci dëkk bi léegi ñu bëri na dañoo fogon ne comme duma ma bëre parce que jouro ma mu mujjee dugg té bobu nonu euh, avant ma ngëm sax yobuna licence bi té amna ñu bëri ñu fi déggoon ñoo xamné né dañoo xon dañu bëri mais bama ma ñu ma ñu ma ñu ma doon dégg ñëp ñu bëri dañoo dama leen mujjé gis ñom ñu tok ci biir ki bi enceinte bi non tok bëri ba man daa xam ne dañoo bëri xamone dañoo yebbi. <laughs> waaw la mu jooju ni mu démé won bu collège bobu parce que collège collège waaw collège moom suñu borom suturaal na fa ba lamb yu bëri moom jël naa ko mhm. ba si lamb boobu noonu sax maa ko jëloon mhm. koo daanoon ma ndaxar ne laa daanoon waaw mais man am ci benn lamb boo xam dama koo seetaan boobu dafa mel ni Mamadi Ndiaye demi final la may ndubaab lamb jooju laay moo mujjee dugg si sama benn grand <coughs> dara tax way tudd turam mais daf ma ne keroog dañ leen waxoon ne kii mujjee dugg si lamb ji moom mooy jël lamb ji ñu toog toog toog toog toog toog ba dernier moment ñu ne mbër benn mbër dootul dugg si nduuta dugg si. waaw <laughs> nduuta bi mu dugg see day yëg si rek laay fël gars yi yuuxu. Hmm. <laughs> lamb jooju est-ce que nga see ñëwaat. waaw parce que lamb noonu soo xoolee. Euh, xam nga lamb bi euh, lundi la tombé loon. Hmm. parce que dimanche bi film laa doon jeex. voilà la jour boobu maa jël lamb film laa bi. boobu kan kii laa daanoon sax euh, Idi Idi bu Palmarin grand Idi. moom laa daanoon léegi ma yeewu. ñu ne ma ñu ne ma ñu ne Joal day kii quoi day kii waaw léegi si laa xëy ñëw juróom maa kii maa may maa ma demi final sax demi final waaw maa ko may demi final. Mm-hmm. mais lambu jooju neexoon na trop. waaw neexoon na waaw trop sax parce que juróom noonu maasawaay ñoo newoon di ruube mm. mooy loolu maasawaay tey defee di ruube si koñ bi may ruube si koñ bi fii maa de. Mm-hmm. mais à part boobu lambu yi nga bëree Joal yëpp ban lambu moo la si gën a neex. làmb yu ma bëree bëree bëree bëree Joal fii yëpp. waaw parce que am na benn làmb boo xam ne euh, suñu kii ñoo ko tëggoon suñu marieurs parce que boobu suñu marieurs yi port ñoom maanaam. at bi soo fi soo waxoon ne ne soo foo toll ñu ne la làmb marieurs yi xaar làmb marieurs yi la ñuy xaar. Mhm. mais laay aussi biir Joal mu am fi benn làmb boo xam ne mënuñ koo tëb mooy bi ko mbalkat yi daan. waaw biir Joal. boobu coow li bëri na mbalka lay njay Omar Jalang fi mhm. bi la mbalka di daan biir sowal instant boobu noonu bo may daan sa bo bo boy ma ngi xaw nek boy sax parce que boobu may beure tank dama waaw fi ni rek mané xaar ma dem si poa ki euh, nu tudu tudd mhm. si si poids lourd mhm. te bobu xama sa way bobu neexulon mbir te xama sa way bobu du neexul wax me xama champion la won ci mbabat bu ba sax parce que non gis bu dugon mom gaay yi yëppay xama moy nga mais aussi laay njaay dañuy dem fi nga xamante ne moom mooy ndàngaan dafa mel ni am na benn làmb bu neex ba ngeen fa fekkante yéen ak ñoom Cheikh Ouz yéen ak ñoom Omar Jalang lamb boobu laay mun na see revenir. waaw waaw lamb boobu moom waaw lamb neexoon na trop. parce que lamb boobu gis boobu xam nga boobu noonu instant instant yooyu noonu boobu. àll daanaka côté yi yëpp tëj naa ko. léegi ñu war a dem lambu ndàngaan bi. te lamb boobu jour boobu noonu sama baaraam bu mag bi. daa xotteeku boobu ba may entraîné Dakar suñu écrit foofu daa ko léegi may soox ñu ne ma est lam bi jar na ngay dem may leen noonu garaawal bàyyi ma dem comme waaj naa ba pare léegi lu ci gën garaaw léegi ñun ñu départ ay 17 ñu dem ñu dem ba foofu noonu gars yi yëg ne ne laay dugg si na li laay mu ngi si dëkk bi ñu waat ñu ne leen bi dañ koy kii dañ koy yóbbu ba muy nii mu nekk làmb guddi <laughs> boobu parce boobu noonu am naa ne ñoom ñu may jekkal te man bobu xawna len baye xel touti may len ah ñu ne ma demna ba commencé di waaj pour ñem ñu né non non ñu daw si lambi dañ ko acc ba ay euh, ay 23h le mbeuri di dugg. léegi nag ci la baye tamit ba ay 23h tamit ñu dem mu kon tamit lambu neex parce que bobu ñu ma ngi amal jala gaay yi ñu ngi ki kii euh, ñu ngi doon ñu ngi ki kii essence yi tekkalee ñun ñaar. te bobu gaay ñepp nga don xaar lool. légui lu ci don gëna neex nak boobu ñoom man demoon naa ngam mu ngi fa woon Martin ñoom Zal Ndiaye yëpp les premier tour xaw ma deuxième premier premier tour foog naa Martin la daan deuxième tour xaw ma nga non Zal xaw ma ngam léegi euh, bu daanee mhm. moom day baaxu tour la rek. ma jox <laughs> waaw joxoon ne ma yaa si des te boobu bu daanoo gars yi dañ doon yor ay kii filogène. waaw kon su daanee rek yi dañ koy bugg di taal muy tàq comme quatre coins yëpp. ok mu nekk à domicile affaire yi. waaw affaire yi neex na waaw ñoom parce que ñoom xam nga ñoom yàlla moom da leen may ñoom dañoo mun làmb. Mhm, ndangaan waaw ndangaan dañoo mun làmb trop ñoom moom wax dëgg fa làmb day neex. mais bu ñëwee après bu daanee def loolu noonu. ñëpp di yuuxu. léegi nag lu leen gënoon métti nag mooy. ma daaneel sa waay ba pare ne leen tàll leen kii fil tàll leen fil la set yi gars yi duy jooy jooy métti loolu du ma ko fàtte mu mm. gars yi duy jooy laa boobu mm. ko daan woon euh, ma xool koy daan lan maa ngi koy daan quart de finale demi finale boobu boobu sax maanaam dañuy tóol mm-hmm. te man maa mujjee bëre mm-hmm. léegi mu des parce que six la ñu woon mm-hmm. ñu seepe ma maak moom xam nga quatre mooy des léegi ñu boole ñaar ñee ñaar ñaari combat yi ne quatre yee. Oh. xam nga foofu noonu ñaar moo des foofu. Oh. léegi maa sa waay ku daan. Mhm. da war a qualifier direct léegi ma daan sa waay. Mhm. léegi ñu ka <laughs> ñu qualifié ñu joxaat ma usine doole. demi final waaw. Oh. léegi si lañ ma jox foog naa usine doole qualifié loo kii yoo euh, nu mu tudd njool njool ansu. te si laa daan usine doole. Mhm. waaw tase njool ansu foog naa njool ansu laa may final. su ma juumul njool ansu. waaw Ndiol daa mel ni Ndiol Ansu laa may final Ndiol Ansu. Oh. xaw ma ma xamatuma su ma jugul daal la dafa mel ni moom laa may final bi. mais lambu jooju keroog bëriwu leen fa yàgg Cheikh Ous wala yàgg Cheikh Ous fi laa la woon. Cheikh Ous fu fu mu laa lañ bëri mhm. parce que Cheikh Ous moom bëri nañ lan bëri nañ fi mu laa. Mhm. waaw bëri nañ fee nu tudd euh, kii Diouroup. Mhm. bëri nañ kii tamit Dakar. waaw. daan trois yi. <laughs> waaw. <laughs> mais ku ci nuyuwaale moom sama waay la. parce que ñu doon déggante si whatsapp bi lu bëri. Mhm. sama gars yi moom sport bi moo ñu doon boole mais après bu jeexee rek. Mhm. ay kii lañ ko ay frère lañ. Mhm. mais ku ci mel ni Fodé Fodé Sarr moo nekkoon ndax ndaanaanu bërikat bokkoon si gars yi nga xam ne dañoo naqaree woon bëreel. yaa Fodé laale ngeen. waaw Fodé laale Fodé lu bëree bëri na de. waaw xam naa nag bu bu may ëppale tamit benn benn la may ëppale. waaw moom moom bëri lu bëri xam moom tamit champion la ku mën a bëre. waaw mën na bëri trop. mbër la woon wax dëgg fa yàlla. Mhm. mais Laay Njaay ak ak Mbisaan tamit. Laay <laughs> ak Mbisaan nekkoon lamb ju neex. waaw Mbisaan Mbisaan <laughs> da doon deere parce que gars yu bëri dañ dugg sax ndax maax moom kese di paas. Hmm. waaw. yaa ñaata yoon ngeen bëre. ma xool bëri fois. bëri nañ trois fois. mu hmm. daan ma deux fois. Hmm. ma daan ko benn yoon. parce que Dakar muy dëgg-dëgg rek Dakar moom. maaxawaay moom ñoo ko moomoon parce que noonu gis buñ tase bu bu bu duggoon ma dugg nii rek xoolal làmbi gaa yëpp dañuy dugg si biir xaalis bu dul jeex la gaa yi di jaay le jour ma njëkkee daan noonu final. une semaine lañ def ñu tasewaat juróom maa ko njëkk daan maa ko génne si làmbi 15 heures lañ bëre 3 heures parce que boobu noonu dama dafa dugg. Mhm. ma dugg ñu boole ñu maanaam tegaguñ suñ cumbukaay sax gaa yi boolewaat. Mhm. ma daan ko. ma daan ko après fan la la daanaatee waaw muy muy 2-1. mu nekkoon dër bi aussi. Mm-hmm. laay ak jàmm cox nag. gaa yi waa Ngéeñoon lañ jógee gaa yi ma boo demee nga ne laay kan moo nekkoon sa bête noire. <laughs> waaw parce que loolu mooy sama bête noire de. Ah. waaw parce que daan na ma trois fois kay. Ah. waaw <laughs> soo jiwul am na benn jour boo xam ne moom daan na ma Dakar foog naa. Ah. waaw mos na ma daan am tamit waa Dakar est waaw daan na ma Dakar xaw jàppatuma rek mais moom daan na ma trois fois xaw ma. waaw mais lan moo nekkoon affaire yi li mu doon bëre moo la jekk wuute woon oh, wala lan la woon non non moom moom bu ñuy bu bu may njëkk daan boobu faajaal dama doon da sama grand bi mo fa newoon quoi mbajik léegi ba mu waree dem ñu dem ba foofu noonu mu dugg léegi gaa yi gaa mu ne ma léegi da ngay ngem nga dugal gaa yi boobu maa ngi bëri lan raw gaa du sax xaw ma bëreeguma sax poids euh, tànk normal léegi si lañ si laa dem kii mer ngeen mu dugg ba dem fo bëgg dindi ñu ne waaye comme ki nga ba par rek zéro ko rek affaire yu noonu ci lañu tassé fo mu daan ma. yeneen yi. yeneen yi Dakar. Mhm. Dakar fu na xawma 16 nak mo fa amul mhm. xawma 20 nak waaw Dakar. wa dafa mel ni daan woon demi final. Mhm. wa dafa mel ni parce que man ma daanon ki loolu euh, bokkul ak bu ma daanee jotoon waaw mom moom moom Dakar wa Dakar aussi beneen moom xamatuma fal la. hmm mais laay aussi am na benn làmb man Joal la ma fekk fii ma fiy jànge keroog daa tombé venn nag moo amoon dakaar dix nag am Joal Martin moo jëloon bu bu Joal bi. ba keroog wi ñuy ñib si sax ak waa teraanga yi ñu naan Martin jël na dix nag Laye Ndiaye jël na vingt nag. loolu la gars yi doon wéy si tali bi vingt nag yi nga doon jël Dakar loolu est-ce mun nga cee revenir aussi. waaw vingt yi waaw parce que vingt yi boobu boobu noonu maa ngi koy waaj. Mhm. mais tamit xam mhm. man suñu borom dafa ma dimbali. Mhm. dèjà vingt gi ba mu amee rek ba ma duggee cubukaay bi fu ma ko tegoon. gars yi dañoo téye seen gémmiñ ñu ne ah tey laay tey tey laay day day daanu parce que daa luppee fu mu toog. mu fii kenn mosu fee toog. am sama benn nekk Dakar. mu ne leen yéen nelaw. mu kii fu mu teg affaire bi kuy kuy jël làmb fii lay toog. te boobu boobu te ku ma daan final sax côté côté boobu la toogee woon encore. mu nekkoon tamit làmb bu bëri mbër boobu foog naa tamit ay. 150 sax teg na laa la wax hmm. waaw yéen ya, laaj ñëwaatal si parcours bi keroog tirage bi tirage bi man moo parce que boo làmb moom daanaka gars yi maa leen daan man dama xamatul nag ñaar la mais gars yëpp maa leen daan laa la gars yëpp parce que jour boobu noonu benn copain sama benn copain la ñoo final noiro hmm. moom dafa ñëw comme gars yi ko mburu Dakar hmm. mu trompé leen ñoom ñëpp mu daan leen nga daan ko final ma daan ko final waaw laa jël na aussi salon Dakar de wa jour boobu laa waaw Mbalka waaw. ok a avant nga egg si Mbalka ñan ak ñan nga daal si yoon bi. parce que lamb mbal mu saa yi <laughs> gars yi laaj laaj palaare sax bi laaj. waaw yu si bëri am na ñoo xam ne malal malal malal tamit waaw malal daanoon naa ko boo xam ne tamit daan naa ko fa waaw. ok mhm. malal aussi ne kon pël séeréer yi munoon bëre yaa ngi moom ñaata yoon ngeen laale. Euh, ma xool malal foog naa bëri nañ xaw ma quatre fois xaw ma. Mhm. foog naa daan naa ko trois fois benn bi ñu niil. ma génne ko par point. Mhm. xam nga deux fois la waaye foog naa deux fois laa ko daan xaw trois fois benn bi ñun niil ko. Mhm. fay grand yooyu fois. jour moom dafa ñëw sax suñu lewtee ba arbitre mhm. mu ne ma booy tey daloo si tey doo tey moom doo ma daan. dañuy machine niil bi yaboo nga gagné par point mais doo daan. mu nekk grand bu fair play nag. da koy daan sax mu encouragé la soo xamul sax boo yéexee xool da ngay foog moom moo daan. léegi fii di Joal aussi Dimle Dimle ñu gis ne bëri na ak ñoom bañ kii xawoon leen sonal mais laaj bi mu ñëwee daa mel ni daa jël revanche par procuration Dimle suñu grand moo koy nuyu bu baax di ko ziar di ko jaajëfal doomu ndey ñoom jaxaa Mamadou Faye le gendarme maa ngi koy bëggee moom tamit sa diggante ak Dimle seen i combat. waaw parce que Dimle xam nga dafa nekk mbër boo xam ne ne xam nga du ku ñuy yab waaw du ku ñuy yab parce que mënoo mënoo tase ak moom moom te par force di nga tiit parce que loolu lu ko suñu borom kii la lu ko suñu borom defal la waaw. mu nekk grand bu baax grand xam nga def na fi lu ne si làmb bi waaw. léegi ñu dem ba benn moment nag ki nga xamante ne Omar kan lébu bi Reug Reug yegg si <laughs> coow li ne kur ñu ne doomu Robert yi ñoo fi nekkoon luñ luñ teg ñu jël ko. Mm-hmm. Abdoulaye Ndiaye wala Mamadou Ndiaye Reug Reug ñëw ne loolu dafiy jóge affaire yooyu noonu ñëw bëgg a wu laay ak Reug Reug ñaata yoon lañu bëre. Reug Reug bëri nañ euh, cinq fois. Mm-hmm. waaw. bëri nañ cinq fois. cinq fois ñaata ñaata ngeen def. <laughs> gars yi xam nga yi moom des fois dañuy toog. boobu ko <laughs> li bëri na laa njaay rek rek te gars yi xamuñ. waaw man maa ngi koy nuyuwaale sax xam di ko nuyu moom bu baax xam moom li ngay gis nii en en dehors de moom sama waay la. parce que souvent bu rombee xam nga Joal fii day ñëw taxaw ne ñu yuuxante mbalagante xam nga mu dem xam di ko bëggee tamit bu baax parce que xam nga làmb moo ñu boole woon rek après bu jeexee bu jeexee nii rek. Mhm. mooy loolu ku nekk day nekk si jàmm après ñu dund fair play bi. Mhm. waaw parce que bëri nañ cinq fois ma daan ko trois moom mu daan ma deux. la deux. Mhm. laay fan fan la daanee rek rek. daan naa ko Joal. daan ko Demba Diop. daan ko Iba Mar. mais benn jour bi mu am jour boo xam ne rëg-rëg daa daan laay daan Mamadi Ndiaye jour boobu affaire yu lan la woon. loolu nag lu mu ñu lu mu ñu yomb dal bëri na rek comme soo daanee kenn gi daan keneen ki hmm. <laughs> waaw waaw jour waaw jour boobu moo moo ma daan daan sa waay kañ. Hmm. Hmm. parce que parce que gars yi moom moom moo ma daan mais bu maaw di moom gars ñu doon wax ne ne jël am na affaire yi bëri woon na problème mooy loolu mais après moom lañ mujjee jox victoire bi. léegi laay mun nañoo wax ban lamb moo ko gën a marqué si mu jotoon bëri noonu noonu yëpp boo xam ne kontaan na si bu baax a baax. waaw parce que xam nga man yàlla dafa maa dimbali chaque jour day day seetlu benn affaire lépp lu ñuy lu lu musul am lu ñu si a teg rek su ma ko finaalul jël jël naa ko dina oto bañ koy teg noonu Dakar sama génération dina si njëkk a finaalu ñu daan ma gis nag bañ koy njëkk a teg Dakar maa ko jël cinq koy njëkk a teg Dakar maa ko jël salon bañ koy njëkk teg Dakar maa ko jël mais dañ siy ñëw maa ngi ko doon fàtte nu mu demee woon a cinq millions xam nga boobu noonu euh, dafa fekk sax man euh, maa ngi Joal bon dama bëree dimanche bi beneen semaine ba moo non làmb pour parce que pourtant ñu naa ba fii Joal fii toog naa fi lu tolloo fii ba treize heures fii laa nekk xam nga pour dem mais boobu noonu damaa pareegul woon na pour dem mais xam nga suñu borom rek bu la naree dimbali ma jékki saa ne leen gars yi mu ñu dem hmm. Hmm. ma dem ma dem nag daan ñëpp jël làmb kan ak kan nga daan final parce que premier premier tour man premier tour yi jàppatuma ñu ma daan deuxième tour ba deuxième tour parce que jour boobu noonu final bi Fodé laa daan euh, demi final Sele. Sele wax di ko nuyuwaale sama commerce. Sele <laughs> waaw di ko bëgg waale bu baax moom. Euh, foog naa tamit quart de finale Sey laa daan. Youssouf Souf moom laa jàppatul. ok mais favori yi ñoonu la woon Sele Mele Cheikh ak Fodé de final waaw bëri woon na mbër parce que sama grand l'an 2000 ñoom ñëpp ñu ngi fa woon. ay ñoom bis bi. bëri woon na de bëri woon na un trop sax trop parce que heure bii nii fekk na gars yi ñu départ nañ commencé bëre bu yàgg sax. waaw. mais laay est ce que bëri woon na li doon génn di dugg ci île ay mar ay di dem côté pour dem côté parce que fini gaay gars bobu non gaay yi côté yi fi dañ doon tek comme ay xaalis bu beuri xam mo waralon parce que man ngi Dakar rek la mu Dakar fuma ko deg dem ak suñu côté yi fi moy lool mais nak nu sa lool nekkoon lu bokkon ci man nak pour dem ci ilini di beure waaw côté côté bi nak comme nuñ koy wala côté Fatik bi duggu ay ñaaxar bu ay côté kaolak yooyu waaw fofu noonu su mu bëre naa foog naa mbeel a kajow mhm. côté fa ay a mhm. waaw même fatik sax fa waaw ay Diouroup. Mhm. côté yooyu yëpp bëri naa fa. mais laay daal fi mu gën a àgg mooy Dakar Joal fi mu laa nangaan Diofior. côté yi waaw <laughs> côté yi moom waaw côté yi moom suñu borom di na fi bu baax sax. Mhm. Mhm. ok léegi ñu gis na laay di bëre ba ay deux mille treize deux mille douze yooyu la commencé dugg ci arène bi après dinañ ñëw si loolu vidéo spéciale gars yi boo leen seetaan yi pare ngeen ñëw ci combat arène yi deux mille quatorze affaire yooyu noonu deux mille quinze laay commencé di wàññee di wàññi bëree bëre kii bi. ba dee simple bi. Mhm. ba laay bi mu daanoo si combat moo giri de laay dafa disparaître. Mhm. léegi laay aussi 2016 dafa mel ni. ñëw 2017 2017 ñëw na Adrien Senghor. boobu daa mel Ibou Ndiaye moo ko daan. waaw 2018 mu dem Palmarin xaw ma. waaw mooy 2019 2019 waaw wala 2018 la daa mel ni. 2019 la avant corona bi. waaw la Doudou daan ko foofu chaque chaque année day ñëw def retour boo xam ne retour non gagnant lañ ko mun a wax <laughs> loolu lan la woon laaj day ñëw bëre benn lamb dootuñ ko gisaat. non xam nga période yooyu noonu xam nga situation yi xawoon na mhm. te xam nga des affaire da nekk si tolof tolof. Mhm. te dèjà après sama combat bi noonu ba mu pare. Mhm. dama doon waajaat pour kii euh, pour. ñëwaat si kii bi nu mu tudd si mbabat bi. mais après si laa kiiwaat si euh, kii si laa gaañuwaat si loxo. Mhm. Mhm. donc parce que gars dañ doon wax ne laay dafa bàyyi woon dafa bàyyi woon. loolu kon ñu leeral boobu non boobu noonu. boobu boobu moom bu bëree a ba pare après dama waxoon ne mooy compétiraat. Mhm. si laa si laa compétir nag gaañu gaañu bu métti sax. c'est nag gars nag duñ comprendre mais lu ma daj foofu noonu. keneen ku ko dajoon noonu da ngay sax bàyyi da ngay découragé. waaw parce que si laa ñëw après si laa ñëw fee nu mu tudd Mbour. si la ma kii daan euh, kii ordinateur. waaw waaw moom moo ma daanoon quoi mhm. waaw. léegi muy ñetti tentative yoo xam ne lépp da koo ñàkk ñu ñëw ba ci deux mille vingt corona bi dugg gars yi deux mille vingt et un yegg si laay di entraîné di entraîné gars yi ko wax ñu ne la laay ngi entraîné ñun aussi ñuy gis vidéo yi di yaakaar laay dina ñëw laay dina ñëw mais laay ñëwul ba fin fin de saison laay benn lamb la bëre lamb ji tëj lu waraloon xaar bu yàgg bi. non non xam nga boobu noonu maa ngi doon waaj parce que boobu xam nga kut ko kut maa ngi doon waaj pour bëree kii combat. pour pour am combat bu ñu ma doon kii proposé. mais xam nga boobu noonu xam nga tamit. man parce que dina boo affaire yi làmb yi dox na peeru dox boo xam ne xam boo toogee nii. boobu da ngay te mbapat bi saa nii mooy loolu diisatul. boo ñëwee boo fekkee ñaari poids lu bëri na. waaw. léegi nga ñëw retour Ndangaan ki nga xamante ne moom mooy Toubacouta daan na foofu noonu lamb jooju laay dugg si gars yi ni ñu ko teeroo laay lañ nga yëg keroog. waaw ah, non xam nga gars yi dañ doon comprendre benn affaire man des fois dama doon dama doon waaj parce que lamb yi nii nekkul loo xam ne ne comme saa da ngay ñëw du soobu parce que gars yi dina boo gars yi des fois boo leen déglu pour ñu pour ñu yàq sa carrière lu yomb la des fois nit ki parce que boo jógee si yenn difficulté yi da après da ngay xam lu bëri du ay caaxaan yu ñàkk fayda yooyu noonu moo lay dugal. tamit bo bo demee tamit def erreur dañu waxat la même chose rek moy lolu xam nga mu nek lo xam tamit dang koy wadjal bu baax. Hmm. mais retour bi ndangan nga finaalu Toubacouta daan la. Hmm. waaw waaw xam nga tamit lamb yomulon parce que bo toogee yenn at yi bëriwoo boo ñëwee nii parce que ñuko def ñëpp ñoo bu ñu ñëwee dañuy dañoo daanu xam nga dañuy am problème sax pour bëre. mais xam nga kan mom man nekuma gan ci lamb bi boo ñëwee da ngay maîtriser affaire yi ba am lo bëgg rek parce que keroog ñu ma taseel premier tour ba final su ma neexoon arbitre bu sifflé du ma leen sax may dara mais xam nga laa doon bañ moo tax dama dama ko doon xam nga xam nga gérer ñoom xam nga mel ni ku bëggul si làmb bi dara rek. comme xam nga des fois yi moom voilà soo soo soo soo si làmb ñoom dañuy foog ne ne da perte repère mhm. fekk du loolu affaire da nante nga leen di jaay rek ñoo bàyyi yaram bi noonu xam <laughs> ñu foog ne ne kii nii kii nii xam nga dafa dafa réer affaire yooyu noonu te boobu damay bugg ñu ñëw pour ma pour ma juumloo leen parce que mënoo bëgg ñëw pe xam nga perte yenn repère yi bëgg a ñëw rek accéléré mënul ne mhm. da ngay ñëw def ndànk ba am loo bëgg rek parce que booy daa am benn bu ñuy ñëwee mhm. daa gis ci làmb mais final bi affaire indi coow indi controverse laay ne ñii ne daanu na ñii ne daanu nañ. laay lu mu jàpp daanu na wala daanuwul. non instant instant bii nii. Euh. instant bii laay daanu na. Hmm. parce que moom la seewaay lañ jox abi. waaw <laughs> mais après def nañ foofu benn benn presque trente minutes ba nga xam ne taw bee tax sax gars yi mujjee ñibbi laay mu ngi doon envisager bind recours wala. Hmm. waaw parce que moom xam nga mënoon naa bind recours. Hmm. mais dama dama dem ba si biir ma ne loolu garaawul. xëy na suñu borom moom la wërsëgam moom la ko wërsëgalee. xam nga tamit. at ñun ñooñuy sabablu rek suñu borom mooy dogal la man ma amoon problème boobu noonu. xam nga tey amoon nu ma gëjee mun noon naa ñëw daan daanu premier tour. waaw parce que ñu fa nekkoon gis nga leen yàgg nañ di compétir te xam ñooñu gënuma leen xam tey kon su ma ñëwee ba suñu borom suturaal ma rek xam nga da ngay da ngay da ngay gëm yàlla rek xam na ne moom la ko suñu borom waroon jox rek après nga nekk nga nekk ci leneen. Mhm. waaw moom Touba Gouta buuru Saloum comme ni ñu koy waxee borom jamono ñu koy nuyu aussi mais mun nañoo xam laaj nu muy waajalee saison bi instant bi saison bi octobre lay tijji. saison bi. waaw mhm. ah, xanaa maîtriser kii rek nekk si affaire rek. Mhm. bañ a bàyyi dara. Mhm. waaw parce que instant yi moom. parce que nit ki moom. su saison du ubbi si da ngay bëgg a ne man lii laa bëgg a def lii laa bëgg a lii laa bëgg lii laa bëgg a compétir te soo bëggee def yenn yi moom daa am lu muy laaj rek nga def ko. mais est que dégg nañ ay làmb la 2 góor production terrain gaar gi le 3 Iba Mar Diop. lépp si octobre bi est-ce que mën nañoo xaar laay ñëw tijji kii parce que 1 million lañ teg le 2 le 3 ñu teg 3 millions est-ce que mën xaar laay samp bëjën. bàyyi ma bàyyi gars yi ñu commencé rek. <laughs> man ma xaaragu waaw. Ah. <laughs> commencé ma xaaragu. Ah. waaw. donc mi ngi noonu émission yi boo dégloo début bi da yaakaar ne ancien gloire la ñuy waxtaanal mais waxtaanu ñoo ancien gloire mu ngi nii nee na day ñëwaat ah. gars yi ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax léegi dañuy def beneen vidéo boo xam ne spécial ci lutte frappe bi la jaajëfal nañ leen gars yi boo leen seetaanee bi ngeen xaar boobu noonu